yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa نفسي وديني ثم آلي والولد ومسكني لك وديعة أباد وكسى دنياي ما أخرايا فبما لي برسايا وذري وصاب النار عن جملة من يتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربها في تين أو في دين والأجانبية فليكن إسلا ودابا يا سماء مسلمين أبدا وسليا وسلما ناصر مدا على محمد الوسيلة لك وليهب حسن الختام من عندك ولتصرف الصلاة لسابا عن أهله وحبلي الإجابة asalaamaaleykum bokk julli yi seetaan ak bokki taalibe yi jot nañu ñaan ak ndigal lu sëriñ Muntaxa Mbakke xalif général di mut yàlla na fi yàggul lool te ànd ak wér ak kan nag sëriñ Bassirou Mbakke porte parole sëriñ Touba ak kan sëriñ Abbas Mbakke xalifa Daaru Muxti sëñ Mamour Mbakke xalifa daru Salaam sëñ Abo Mbakke ca daru Salaam sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa Maam Cheikh Ibrahima Fall ñu jëm nag ci dëkk bu rëy fu nu jëm dànq seen kan moo woote alaaji àlla seen ak mboolem ay bokkom ñoo woote bis bu rëy ba muy gàmm ga kañ lay doon nag samedi le 15 février 2020 ci dànq seen ndaw bis bu rëy waaye nu ngi ko yëgal bala maa ñëw nag ci ñi nga xam ne ci kilifteef googu la ñu ne ma jox na président arkodas may mbay seen mi ñëpp xam ma wax ñu ci bis bi ak la ñu jëm ak lu ñu fay wuti asubilahi min siraan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum jullit yi asalaamaaleykum yéen waa Sénégal gépp ñun waa Dànk Seen ñoo di woo ci màggal gi ñuy def at mu jot mu war a tombeek le 15 février ñu ngi ci woo ñëpp muy mag muy ndaw ñi gën a woo mooy cellules yi nekk fii ci Sénégal cellule Arcodas yi woo nañ waa Ndakaaru woo nañ cellule Thiès ci ndigalal Modou Mamoun seen woo cellule Kaolack ci ndigalal Lamine seen woo ndigalal Touba ci ñoom ma siga Sène ak ñoom Ndeye Fall ak Sall woo nañ waa Dàng Sène ci ñoom ma ngóone Alaaji Sène boggal ak Dambake woo nañ cellule Diourbel ci euh, njiitul jaaje seen ak alaaji ak euh, alsaan seen ak sëriñ ñang ak yi yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bii ñu daan woote ci màggal ak seen gii ay selilu Thiès Modou Mamoun Sène ñi ngi woo ñëpp ñi ngi woo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jabootu lislaam gépp ci biir senegal ak bitim réew waaye ñu ngi ko yëgal sëriñ Abo Mbacke Darou Salaam sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ maam Cheikh Mbacke mu Cheikh Modou Mourtada soxna maam Mare Mbacke moom Cheikh Modou Fadal Mbacke ak kan sëñ Mountakha Mbacké moom sëñ Cheikh Fatou Fall ci Daaru Muxti sëñ Koso Mbacké moom sëñ Moustapha Abdou Diakhaté ci Daaru waaye sëñ Ahmad Mbacké moom sëñ Mbacké Soxna loo ñu ko yëgal ak kan sëñ Modou Kara moom sëñ Moustapha Absa du ko yëgal nag sëñ Ibrahima Mbacké njar ak sëñ Cheikhouna Bousso ca Guédé sëñ Dan Mbacké ca Mbayan Dàq soxna Maam Mbacké mu Alaaji Maam Balla ñu ngi ko yëgal bu baax ak kan soxna isa Mbacké ahlul café du ko yëgal nag sëñ Modou Kara ci la diwaan ak kan sëñ Mbacké Ngunda Fall ca Mbacké sëñ Xaadim Mbàkke meeru Kër Nganda ak kan sëñ Baaru Touré ci Medina Touré waaye ñu ko sëñ Daam Fall ca Njaareem Fallu Gay ca Ngéen ak Adama Seen bëgg Fallu représentant Sëñ Abdou Karim Mbàkke ci géej waay ulu ko wër bala maa seen ma jox soxna Ami Baba mi nga xam ne tubaarkàlla euh, ñoo ngi ñaan mu yàgg fi tër di kenn ci bokk gi soxna Ami Baba yow ñu jëkk jox na ci soxna yi nga woo bis bu rëy bi bismillahi mina seytaani rajim bismillah asalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu Dank Sène famille mbooleem ku surtout ci Sagar seen maa ngi lay nuyu di la siyaare di ñaan nag sëñ Muntaxa Basiru yal na fi yàgg lépp lu mu naalal sëriñ Tuuba yal na ko yeggale te ñu ànd kook moom sëñ Seex Jëmb Faal yal na ko fi yàlla yàggal ci kanam njaboot gi di siyaare nag ñépp li ma ko daan waxe rek di leen ñaanal tànk seen ca kaw ca kanam ci lu baax yàlla na fi yàlla yàggal mboolem njabootu saagar seen gi jiital nag sëñ Mbàkke Ngunda ak i rakkam di leen ñaanal fan bu gudd ko wér sëñ Seex Jóob Gaynde ma sama doom yàlla na la yàlla guddal taw fan te wéral la may la mbooleem li ngay mébét ci àddina muy yeggale ko sëñ àll seen yal na am ngërëmul Serigne Touba ndax loolu rek la bëgg moom yal na ko am ba doyal maa ngi siyaare ñépp di leen ñaanal nag gàmmo gi maa ngi si woo mbooleem jullit góor jigéen mag ndaw fu waay mën a ne ku ci def sa dërëm yàlla boo ko ñàkkati waa Amérique na ngeen daan def defaat leen ko li ngeen ci daan dajale di ko yónnee defaat leen ko waa diaspora bi ñépp rek fu dànq seen nekk rek dànq-dànq fu mu nekk rek na dugal loxoom ci gàmmu gi ñu def ko nun ko daan defee te mu dàq ko fuuf maa ngi siyaare ñëpp baay booy mbay seen yal na nga yàgg a jiite njaboot gi jiite nga leen te dara ñaawul seen yal na nga yàgg a jiite mbooleem fu njabootu saagal seen nekk rek yal na leen fa yàlla fekk ak sutura ak teraanga maa ngi siyaare ñëpp di leen ñaanal dànq seen ca kaw ca kanam ci lu baax yàlla na leen ko tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ci barke Seexunal Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum mbokki dànk mbokki Sénégal euh, ñun waa Arcodas ñooy yëgal gàmm gi ñuy amal le 15 février 2020 di woo 25 villages yi nga xam ne moo constitué commune dànk seen yëpp ñu mën cee lim Loomeen Cax Ñang Cax Kër Masale Dongo Njogob Diop Njogob Ndiaye Ndia 1 Ndia 2 Ndia 3 Kër Ndianku Mbayan Dànk Thiey Ngéy Ngéy Kër Ma Ndiaye Mbumi Galle Ndiaye Daaru Salaam Galle 1 Daaru Salaam Galle 2 Njagent Cuureen Daaru Xadim Tamaaka Mbab Touba Mbéyeen ñi ngi woowet communauté rurale yi nga xam ne communes yi nga xam ne ñoom ñoo fa faral saasu su dañ fay ñëw euh, te ñu bokk ak ñoom département de Diourbel mel ne waa Ndindi ñu ngi leen di woo waa Kër Ngalgu ñu ngi leen di woo waa Taïba Mutufa ñu ngi leen di woo waa Gade Escale ñu ngi leen di wo waa Touré Mbond ñu ngi leen di wo waa Ndulo waa Patar waa Ngoy waa Tokigaar ak waa Ngay donc communes yooyu yëpp daan daan def saa su ne dañuy ñëw ci gàmm gi ñu ngi leen di woo di leen wax ne tàllal leen suñu loxo pour bis bu rëy boobu ñu ñëw ci màggal ko wasalaam. asalaamaaleykum mbokk jullit yi suñu gisee jotaay bi rek comme ñi ma jiitu niñ ko waxee ñu xam ne Arcodas mooy woote gàmmug dànq seen euh, le 15 février incha allah ñu ciy woo mbokk yépp ak xarit yeeg am di jàmm yi ak soppe yi. ak suñu autorités yi ñëpp ñu di leen woo waaye nag di ci gën a ñaax suñu mbokku jigéen ñi di leen wax euh, ren euh, comme niñ ko defee woon daaw ci innovation def cérémonie familiale ci suba si dañu leen di woo pour ñu waajal ko xam ne ren incha allah rabbi bu 10 heures jotee bëgg na ñëpp daje ca tànt ba jigéen ñi génn mbokk yi génn ñu nekk ci biir vingt cinq village yëpp ñëw ñu waxtaan ren nag fas yéene nañoo waxtaanee li nga xamante ne nii mooy mbirum arcodas mi nga xamante ne moo waral mooy def gàmmu gi ñu wax xam lan mooy arcodas jéem ko yaatal ren loolu la ñu fas yéene ñu bëgg nag ñëpp ñëw ci ndax arcodas nekkul loo xamante ne nii lu ndaw la jigéen ñëpp nag maa ngi leen di woo di leen wax waa dànq nañ ko def nañ ko daan defee euh, yaatal gan yi ah ñëpp ñëw ñu waxtaan ci njekk ak teraanga def gàmm gi tàmbale ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabi alamina di ñaanal suñu kilifa yi yëpp yi nga xamante ne nii ñi ngi toog fii ci jotaay bi di ñaanal ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñu dëddu fekkee woon ko daaw te fekkee wuñ ko ren di ñaan fañ nekk yàlla na leen gënal fi ñu jógee ñi ko wuute ren te seen yaram sutante ñi ngi ñaan yàlla delloo leen ci seen sago maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokk taalibe yi. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen woo ci sunu gàmm gi nga xam ne at mu jot ñu koy def ci Dànk Seen di ci woo euh, waa euh, bokki taalibe yëpp rawatina les sénégalais de l'extérieur ressortissants yi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger ma ci gën a soññi particulièrement sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk euh, Italie di ci woo tamit sama mbokk daayira Touba Toscane yëpp ngeen xam ne seen mbokk seen taalibe moo xewle di ci jiital euh, ressortissants yi nekk euh, États-Unis adultes yi ñu ràññee ci El Hadji Ndiaga Sène ak euh, Soxna Momi seen ci cellule jeune bi Marème Soda Sène ak Ousmane Sène Assane Italie Maam Thierno Sène Argentine A Sène Ousseynou Sène France Alioune Sène COPPA Côte d'Ivoire euh, Cheikh Sène Gambie Modou Kandji Sud Ndonga Gueye ak Maam Oumar Sène euh, Mali abdu Diop ak euh, euh, Gabon Abdou Aziz Diop euh, Abdou Sène Canada Fatou Kiné Diop tuuti ak Brésil Alioune seen ak xaadim jóob euh, Espagne Madické Sène ñu leen di ci woo yéen ñëpp kon ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax wasalaam asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum suñu mbokki murit yi asalaamaaleykum waa dànq seen ñu ngi leen di woo ci lañ leen daan woowe nday mati nee na 10 heures na ñëpp fekk nañu fekk ca baas ba ñu def suñ waxtaanu famille may wax ne man daal la ma leen doon wooye rek maa nga ca ba tey teel a génn teel a sañse moom moom suñuy jàng ku fa ñëw ñun nga ñun nga ñun nga fekk si bu ku lay fekk si nag dala cay fekk ñun ñëpp nañ teel a génn teel a sañse teel a toog ca baas ba xaadim ngay jàngal ñu lu neex tañ saraxe ma leen di wax nag ne ndey ndooy mm, ndey faal njaaya sàll waa tubaa ñu ngi leen di woo waa daanga ñu ngi woo ummi seen ñoom xale yi ni ngeen maasee jënd seeni i déguisement ni ngeen ni maasee génn ca baas ba njaareem ñi ngi woo faat sekk ak ñi mboot ñëpp Dakar ndey mati yaag sa gàngoor gi nga àndal yëpp ni ngeen teel a génn ca baas ba jigéen ñi man de soññe rek ma ci war ci baatu ndey mati ndax ñu léegi suñu wàll wéy ne mag leen waaye dañuy toog di ñaan ak di soññe kenn du ñu jiitu nag ca sañse ya sañse bam jekk teel a génn teel a defar mu baax ku ñëw fekk ñu fa ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla ak màgg suñu borom yàlla ñu ci yàlla yóbbu ñu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim eggale ci alhamdulilahi barke sëñ Mbàkke soxna Lo jërë ngeen jëf maa ngi leen di nuyu yéen waa Touba dànq seen ñu ngi leen di ziyaar leen jox seen wàccuwaay ñu ngi leen di wax nag suñu gàmm maam gi ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp di ci woo sëñ Jili Mbàkke mu sëñ Moodu Maamun ñu ngi koy woo di woo sëñ Sam Mbàkke mu sëñ Mbàkke astu ñu ngi koy woo di woo sëñ Baara Touré ñu ngi leen diwoo woo ci bis bi suñu bisu maam bi moom lañ am ñooy suñuy wasila ñooy suñu yaakaar àdduna ak àllaaxira ñu ngi leen koy woo di leen wax nag affaire cérémonie bi dafa am cérémonie familiale am cérémonie officielle dañoo bëgg cérémonie familiale bi ku mën a génn nga ñëw dugg ci cérémonie familiale bi cérémonie officielle bi ku ku mën a ñëw nga ñëw dugg ci cérémonie bi ñëpp ñëw comme ni ko suñu présidente Ndeye Mati waxee ñëpp ñëw sañse ñëw toog joxe xaalis bu baax nag ci jàng yi ndax ñun waa Touba Darou Salaam moom ku ne xam na ñun xaalis ak bernde ñun ñoo ko moom ñu leen wax nag wax yu bernde képp ko bëgg rek nanga ñëw kër Thierno Birahim Sène fa la bernde ya nekk foofay Touba Salaam wasalaam jërëjëf. rajim bisimilahi rahmaani rahim ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jaroo lekkee maam Cheikh Ibrahima Fall. ah ñu am bës bu rëy nag bës boobu mooy ban bës mooy waa axlu dànq seet ñoo woote di sant suñu borom bu baax a baax di woo ñëpp nag di woo képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci sunu bés bii di woo waa Italie di woo waa Espagne ci turu Maxari Seen waaye di woo waa Gabon ci turu Souleymane Fall di woo soppey Serigne Góoru jumm yëpp ñoo ngi leen di woo ci bës bi di woo suñu xarit yeeg sunu soppe yi di dem ba Touba Mbaye nag di woo suñu sëriñ muy njabootug maam Thierno Aysa di ci jiital sëriñ Mahmadan Mbacke di xalifab sëñ alaaji maam Balla Mbacke waaye di woo xalifab sëñ Cheikh Mbacke di sëñ Abdou Mbacke ñoo ngi woo ñëpp ci bës bi di wax na ne ñëpp teel a pare teel a génn ci baas bi barkeb sëriñ Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa danq seen ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax di woote nag ci suñu gàmm gi. man nag ci turu baay Abdou seen laay wax ndax moom moo yor organi organisation bi waaye nag bala maa jàll da ngeen may may ma nuyu sëñ Mbàkke Fall Ngunda waaw ndax damaa ñëwit ci turu baay Fall yépp ndax may toogal sëñ Mbàkke Fall di ko siyaar bu baax sëñ Mbàkke Fall Ngunda di ziyaar it sëñ Cheikh Fall rakkam di ziyaar soxna Fall sunu rakk ak soxna Xadi Géey di ziyaar it bu baax nag sunu baay àlla soxnaam soxna Bintu Kan mii di ko ziyaar bu baax te di ko ñaanal sunu borom defal ko njaboot gu barkeel ak xéewal yu yaatu di ziyaar nag sama yaay sama xarit sama bokkum taalibe soxna Ami Baaba moom dañ koy ñaanal li may faral di wax rek na dund téeméeri at yu teg téeméer ndax moom wax dëgg yàlla njaboot gépp la fi nekkal kon nag nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool seen te waaw man nag damay woote ci lu jëm ci affaire biche yi maanaam le 14 incha allahu rabbi ñu daan déparé rek kër Baye Thierno Birahim seen ca Kaas ba foofu la ñuy déparé le 14 à partir de bu ñu jullee ba pare rek ginnaaw tisbaar ji ci la ñuy déparé paas bi nag 5000 francs la rek naka jekk ku aller retour bi mooy 5000.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 xam ne dànq Seen moo xewleeti di leen yëgal nag gàmmu gi te di leen ko fàttali di ko fàttali sama mbokku jeunes yëpp di si soññaat bu baax a baax te xam ne gàmmu gi ñun ñoo ko moom nañ si ji nañ si gën a farlu bu baax a baax a baax di leen wax nu ñëpp bépp xale boo xam ne dëkk nga dànq Seen rek ñi ngi sàkku sa teewaay si gàmmu gi bu baax a baax a baax te di si woo nag sama mbokk ndongo tarbiya yëpp mi waa kër Serigne Saliou yi waa Xelkom ñëpp maa ngi leen si woo rawatina waa Taïba waa Daaru Salaam waa Touba Xelkom maa ngi si woo ñëpp seen mbokkum taalibe Basirou Sène Xelkom Taïba moo leen si woo yéen ñëpp te di leen si gën a soññ bu baax a baax nag soññe bi nag mi ngi jëm si gone yi nga xam ne ñoo dëkk dànq seen di leen soññaat si dëkk bi bu baax a baax a baax rawatina si gàmmu gi ñu leen koy soññ bu baax a baax a baax nag di leen nuyu nag yéen ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bisimilah aouzu billahi min cheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mboolem uh, jullit yi mboolem mbokk yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar uh, comme ni ko suñu mbokk yi waxee rek suñu bés bi dafa dellu siwaat te mu doon bés boo xam ne bii waa dànq seen bés bu ñu fonk lool bés bu ñu fonk lool kon ñoo ngi leen ci woo yéen ñépp bëgg ngeen teewlu ko te yegsi ci waaye rawante ne nag ki nga xam ne kii moom mooy njiitu réew mi euh, muy son excellence monsieur Macky sàll président de la république euh, soxnaam madame la première dame Marème fay Sall euh, di présidente fondation Servir le Sénégal di ci woo monsieur le ministre d'état ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di ci woo ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé damay insister tuuti nag ci ministre de la santé ak ministre de l'intérieur ndaxte su dee dañu am dëkk boo xam ne bii ay millier de personnes dañuy converger ñëw foofu euh, dafa jaadu kon ñu wàlluñu ci wàllu sécurité ñu sédduñu ci bu baax te ñu ngi leen ciy séntu waaye ak xew-xewu jamono fi mu ne fi mu toll dafa jaadu nag tamit ci wàllu santé ñu jël ay précautions. ay prévention te loolu ñu ngi koy séntu ci ministre de la santé ñu ngi la ciy woo bu baax waaye aussi di koy yëgal autorités yi nga xam ni yii ñoom ñoo nekk Diourbel di ci jiital euh, madame Aminata Tall responsable politique à Diourbel di ci yëgal madame Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme de la famille et du genre di ko yëgal madame Aminata Sow déléguée sociale euh, à la déléguée général à la protection sociale et à la solidarité nationale honorable député monsieur Moustapha Cissé Lo premier vice-président de l'Assemblée nationale euh, monsieur le gouverneur de la région de Diourbel monsieur le préfet de la région de, du département de Diourbel monsieur le sous-préfet de Ndindi euh, di ko yëgal monsieur Khadim Gueye euh, président du conseil départemental de Diourbel euh, di ko yëgal monsieur Malick Fall maire de Diourbel monsieur Abdoulahat Ka maire de la commune de Touba monsieur Abdou Mbacké Ndaw maire de Mbacké monsieur Abdoulaye Sène maire de la commune de Dank Sène monsieur Moussa Sy maire des Parcelles Assainies euh, di ko yëgal euh, monsieur le ministre monsieur le ministre de l'emploi de l'artisanat et de la formation professionnelle monsieur Dame Diop di ko yëgal honorable député monsieur Mamadou Lamine Diallo président du mouvement Tekki honorable député Cheikh Seck maire de Ndindi monsieur Kani Bey maire de la commune de Ndoulo honorable député Sadio Diakhaté à jurbel di ko yëgal soxna Nata Samba Mbacké administrateur du fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur ñu koy wax FAISE di ko yëgal monsieur Matar Souran président UNP di ko yëgal monsieur Marami Kaba président Magbiji vraiment ñu ngi leen ko yëgal yéen ñëpp di ñaan seen taxawaay comme ni ngeen ko daan defee asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit taalibe kenn ku ne ñu ngi lay no ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di ñaan yàlla màggal gi ñu jëm yàlla nañ ci fekke fekke ko ci bisimilah ah dañ ko tàmbali eggal ko alhamdulilahi rabbil alamina yàlla nañ dem ak jàmm ñëw ak jàmm màggal guñu mas a màggal yàlla na ci màggal gi dàq yéen waa dàq nag yéen yéen a moom màggal yéen la ñuy fekk si ngir yàlla na ñëpp génn seen néeg yi génn seen kër yi dafa dëkk ba ba mu set wecc dalal fa gan yi bu ñëwee ngeen teeru leen teral leen te tax ndax yéen a màggal gi ke ma sàmba moomu ko ma demba moomu ko yéen yéen a ko moom kon yéen la ñu wuy si kon na ngeen ñu teeru teeru ba ngun ba sàmm ñu ngi leen di sant di leen gërëm yàlla nañu dem ak jàmm ñëw ak jàmm barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf ku tudd dànq seen nag da nga tudd kër Tamsir benn lañu waaye progr bis ba nag kañ lay doon samedi le 15 février départ ba nag mi ngi am ajjuma 14 février ca tisbaar kër Thierno Sène ca Kaas ba kenn bañ a tardé bu ñu xëy daanu jàng alxuraan ji nag def cérémonie familiale waaye bu ñu demee nag ba 19h30 gannaaw timis te lañuy def cérémonie officielle daal di sikkar Sam Fall waa kër sëñ Mbacke Ngunda ñoo koy def waaye sëñ Gora Diouf mu ngi gis léegi di xale bu yaru bu mën a jàng moom tubaarkàlla mooy ubbi guddi ga ubbil ko kan nag sëñ Xaadim Guèye mu jóge ba Touba bis baa ngoog samedi le 15 février ca ñu ngi ko yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn. yaa maalikal mulki yaa man jalla منك يا من جل أن خاد ارحم جميع الورى